salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum la diaspora maa ngi leen di nuyu di leen bëggee di leen ziar li may def nii nag xam naa dina leen jaaxal ndax baaxoowuma ko baaxoowuma tontonte baaxoowuma teesante waaye nag olof dafa ni wedd du ragal waaye setal sa der la te it làmmeñ du won moroom ko mukk te ñorul ci suba ba tey sama téléphone baa ngi toj ñi ngi may wowe partout dans le monde te dama am njabot am ay mbokk am ay xarit am ay soppé ci suba ba légui fune lañ may wowe te bo waxé ñu né pap dafa baxo ñaar dafa am talent dafa yaru talent bi nak du man yalla la suñu borom la té xamna ni ni ñu ci dara bi leen déssé liñu né pap dafa yaru

ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen té ñooñu di def loolu du ay sambakat du ay ay musiciens lañu comme man ñu bokk métier bi bokk li def ma ni musique amul animosité musique du defante lu ñaaw musique du waxante ñaaw jël ay ñaaw ne man manam pap Diouf la donc may attirer attention sénégalaise que loolu kuku deg rek xamal ne luñu ñu formaté la ndax kat objectif Dernier image Pape Diouf ndax soit Pape Diouf da di déranger heure ma gloire ñu nous yaq gloire bob. et de heure gloire ma anandot ñom jappalé leen ci gloire bob. ndax ñom ñep nak tay fi la jaar dañ ma daan ñuy door ba ñuy door ñu ñëw yeemam ngir ma jug jàppale leen ci seeni événement kon tey e, bu li amee mënatuma muñ ndax boo waxee ñu ne Pape dafa yaru Pape du wax luñ ko sëf mu sëfoo ko loolu jeex na di wax ne man liggéey rek laa xam loolu mooy sama devise ma am nag mbetteel trop ndax bokkuma ci tey benn lobby di propagande ñi bokkuma di pervers ci ñuy perver jeunesse bi nekkuma di def ay faux bañ ma ciy jàpp la main dans le sac sàccuma dugguma ci tey ay trafiquant de voiture déedéet liggéey laa xam jaamu yàlla su ma paree dem naa toog sama njaboot damaa am nag ñu ma bëgg am ñu may bëggee am ñu may tiitaroo donc sama fans yi sama xarit yi sama am di jàmm yi Sénégal xam leen ni audio saisir ngeen dégg kooku du Pape di wax nag je vais saisir la justice sénégalaise ndax wóolu la justice sénégalaise te am ci ñoom yaakaar que ni lii dinañ ko topp ba démasqué ñu def ndax dara ci sama image wala ci sama carrière ay Samba bo ñëw ne dañ koy yàq wala dañ may dañuy tenir sama image loolu fatna. asalaamualeykum wa rahmatulah taalaa wa barakatu.